mbokki jullit yi ñu ngi ànd ak yéen ci qisasul ambiya euh, sunu dars bu mujj ñu ngi woon ci duruus al mustafada min qissati Muusa alayhi salaam jëloon nañ ci juróom-ñaar juróom-ñetteelu tomb bi ñuy jël tey mooy anna al anbiya wal ulama hum asja'u nnaas quluban wa zalika li annahum ya'lamuna haqiqata ad-dunya wa da'fi wa muhanatu ahli al-batil fala yaxaafuuna min tahdidihim wala min taxwiifihim bokk na ci li ñuy jàng tey ci lu ñuy jëriñoo ci dund yonent yàlla Muusa mooy yonent yi ak boroom xam-xam yi ñoo gën a ñeme ci nit ñi lan moo tax yonent yi ak boroom xam-xam yi gën a ñeme ci nit ñi lu tax asja'u naasu quluban ndax seen xol yi moo gën a dëgër xolu ñeneen ndax ñoom dañoo xam dëgg ñu xam kan mooy yàlla ñu xam doole ji yàlla am kàttanam ak mën-mënam xejul ci doomu aadama comme ñoom nag yàlla leen yónni ñenn ñi yàlla may leen xam-xam moo tax ñoom rus nañu jomb nañu ñuy ragal doomu aadama ñuy ragal mbindéef rus nañ loolu xam nañ doomu aadama dafa lot doomu aadama dafa tële xam nañ nit yi caaxaan amuñu benn doole fi mu nekk nii koo fi gis muy jaay doole di jaay kàttan ci nit àddina yi xool ko tuuti rek ana Ablaye Wade jaayoon na nit ñi kàttan jaay doole indi ay article am patatatata turururu fu mujj gars yi wàcce ko yàlla wàcce ko xoolal Blaise Compaoré dañ koo wàcce bëccëg toppal rek yoon bi noonu nag di dem ba ca firawna ma ne woon ana rabbukumul aala maay yàlla yàlla wàcce ko bëccëg loolu nag moo tax boroom xam-xam yi ak nit yàlla yi ak yonent yi loolu lañu xam ba ñu rus ragal doomu aadama ragal bindeef rus nañ ko mu ne ahlul batil fala yaxaafuunahum min tahdidihim wala min taxwifihim moo tax ñoom yonent yi musu ñoo ragal caaxaankati àddina yi niti diine yi musu ñoo ragal buuri àdduna yi ak caaxaankat yi musul am lu buur ñàng-ñàng-ñàng lu nitu àdduna ragal ragalu day fekk boroom xam-xam bi ànd ak yàlla ne kekk di ko xaar lu tax ndax benn xol ragal ñaari nit ragal ñaar mënu faa daje benn xol nga boole fa ñaari ragal mënul nekk nga ragal yàlla ragal nit sa biir xol mënul nekk kenn rek ngay ragal mooy yàlla rek doomu aadama boo gis rek mbindeef la comme yow lum lay jaay rek xaar ko ci yàlla tabaraka wa taala kon loolu mooy tomb bu njëkk bu ñuy jëlee ci Muusa ñaareel anna daaiya as-sadiq laa yaxdabu li nafsi abadan kuy wooteel yàlla fu mu mën a nekk ci jamono bu nekk warul mer ngir boppam fa laqad ra'ayna kayfa kaana Musa alayhi salaam yuridu qadiyat at-tawxid ala firaun suñu jàngee danañ fekk Musa moment bu nekk muy jël tawxid di ko indil firawna waaye lan la Firawna def yastahzi'u bihi di reetaan di xaqataay su ko Firawna su Firawna laajee benn laaj Moussa tontu da ngay dégg Firawna di xaqataay di ree lu tax ndax ñàkk tawxiid mbokk yi loolu moo tax wa yuridu an yusarrifa an hadhihi alqadiya lakin Musa alayhi salam lam yaltafit lil istihza li firawn léeg nga dem ci place di waxtaan nga gis kuñ jox micro li ngay wax mu bugg koo soppi wax ci leneen tourné tourné thème bi firawna Musa dafa ñëw ci moom na laaj Moussa tontu na laaj Moussa tontu lépp nekk yàlla na bëgg a jël siise bi tot ak ay reetaanam ak ay gàngooram bu ko tourné laaj yeneen ni laaj di xaqataay waaye tarawul ne Moussa ne kekk benn place di ko xaar xam ne mbir mi fii la loolu la boroom xam-xam war a def léeg nga ñëw ci ruq wax waxtaan ba pare nga dégg ku ñëw jël micro daan ne ñun de li sunu baay yi nekkoon ñun ca la ñuy nekk ba dee loolu loo ciy dégg dafa mel ne ñëw li nga doon wax ak waa ji lim li mu wax du benn manaat ki ñëw ci place ne yàlla nee na yonent nee na dañoo war a am tawxiid dañoo war a dund sunna keneen ñëw ne ñun de sunuy baay ak sunuy maam lu ñu nekkoon ci la nekk léegi xanaa kon ñaari mbir la ñu yaakaar na sunuy maam ak sunuy baay ci tawxiid la nekkoon wala ci diina lislaam lan nekk ci alquran lan nekk ak ci sunna lan nekk kon bu fekkente ne ñëpp ci alquran lan nekk ci tawxiid ci kennal yàlla kon jarul ngay soppi mbir yi bàyyil noonu rek jarul ngay wax leneen ndax yonent yëpp ñoo bokk benn mbir buñ doon wax mooy lan walaqad baasna fi kulli ummatin rasul an yabudullah wajtani bu taaxut loolu rek mooy mission yeneen yi xeet bu nekk man yàlla subhanahu wa taala naa leen ndaw pour lan pour nañu kennal yàlla nanu kennal yàlla xeet yépp yàlla yónni na fa ndaw pour lan pour nanu wéetal yàlla mbokk jullit yi Moussa bàyyiwul xel Moussa euh, na lim doon wax pour jëm ko tourner pour mu si changer waxtaan wi wax leneen fukkeel mooy anna al-lujuu ila al-batsh wal unf silaahu man la silaaha la saa yoo déggee dóor leen ko walla nga dégg rey leen ko wala tëj leen ko loolu ngànnaayu ko amul ngànnaay la ku amul ngànnaay mooy mooy wax nañ ko rey ku amul pexe mooy wax nañ ko dóor ku amul pexe mooy wax nañ ko tëj ñett yi rek la buur yi am ñett yi la bandi yi nga xam ne bëgguñu diine ñett yi lañ am dóor leen ko rey leen ko tëj leen ko jeex na gis nañ anna na lamma ajaza an muwajahati Muusa firawna ba mu demee ba tële mënatul jàkkaarloog Muusa lan la def qaala la in ittaxasta ilahan gayri la aj'alannaka minal masjunin giñ naa ci sama màggaay su ma déggee ngay wax fii am na beneen yàlla bu dul man dinaa la boole ci ñu may tëj ci kaso bi la in sa ilahan xayri gis nga bis bu ma la déggee fii nga fi waxtaan di fi def conférence naan am na beneen yàlla bu fi nekk bu dul man la aj'alannaka laam bi laamul qasam la nun bi nunu tawkiil la giñ naa ne danaa la dugal ci ñi may dugal ci kaso ñi may dugal ci kaso yi naa la ci boole kon chaque jour ñi amul kàttan ñi amul pexe ñi amul xam-xam bu ñu tontoo ñi amul bu ñu tontoo ñi nekkul ci dëgg lan mooy seen ngànnaay mooy rey leen ko dóor leen ko tëj leen ko parce que loolu mooy seen pexe loolu nag ku mu nekk sa pexe amoo pexe ndax nit bu la indilee xam-xam loo war a indi xam-xam pour tontu ko bu la indi indi lee lay indi lay pour dindi lay bi qul haatu burhanakum alquran bi mu ñëwee yàlla subhanahu wa taala yónni yonent yonent ñëw wax a gaa yi lan la leen wax qul haatu burhanakum in kuntum sadiqin bu dee yéen a nekk ci dëgg indi leen lay bi rek mu leer ray duur tëj waxul loolu fukkeel ak benn an man istashara halawat al iman hanat alayhi atadhiyat wastadib al azab fi sabilillah képp koo xam ne dangaa ñam ngam yàlla ngëm yàlla dafa xas dugg ci yow dugg sa xol hanat alayhi tadhiya nga def sacrifice day yomb ci yow mbugal day oyof ci yow képp koo xam ne ngëm xas naa dugg ci xolam faaleetul leen loolu gis nañ ko ci saxaratu saharatu na ñëw nañ di concours ak njabar Moussa Moussa gañe leen gañe boobu Moussa gañe leen lan la leen jural ñu am ngëm yàlla ba ñu amee ngëm lan la leen jural ngëm gi ñu def sacrifice ñu rey seen bopp ñu rey leen ñu nangu ñu rey leen ndax ñu dugg aljanna moo tax ku gëm yàlla kenn mënta xeex ak yow ndax ngëm yàlla rek moom mooy armée bi nga xam ne mooy ngànnaay li nga xam ne kenn mënu koo foqarti ci sa loxo ragalal yàlla ragalal yàlla ragalal yàlla ragalal yàlla ngànnaay ngëm yàlla kenn mun koo nangu boo yore paaka nit mun na waññaar ñaar loxo nangu ko boo yore pistolet nit mun na ko boo yore jaasi nit mun na ko boo yore ngëm yàlla nag kenn munu koo nangu yal na yàlla may ngëm fukkeel ak benn ann al mu'min la an yaqula kalimatu xaq jullit ku gëm yàlla foog muy wax dëgg wala yaxsa fillaahi lawmata laa'im bu ragal nit ñi ragalal yàlla nit ñi loo ragal ragal ragal ragal di nga dee bàyyi nit ñi fekk yàlla kon ragalal yàlla waxal dëgg tey nag sunu jamono moom ku wax dëgg am nga problème kii dafa réew kii dafa xamati kii amul xam-xam kii day xaru kii xamul boppam lu ne lañ lay takkal fekk dëgg rek la kan moom moom dëgg ku moom dëgg yàlla yàlla nee na qulil xaq min rabbik dëgg sa borom moo ko moom waxal nit na ñaan yàlla mu dund ci dëgg mu ñaan yàlla mu dee ci dëgg mu ñaan yàlla ñu dekkil ko ci dëgg mbokk yi faqad ra'ayna aala mu'minu aala firawn ke gëmoon yàlla ci jamono Moussa nga xam ne du muusa sax waaye moom daa gëmoon yàlla mu leer ko ne bis bu taxawee ci kanamu Firawna mu wax dëgg nuñ koy def dañ koy rey mu daal di taxaw wax dëgg gi ñu rey ko terewul xam na ne dañ koy rey bu waxee dëgg mais terewul mu wax dëgg gi ñu daal di koy rey dañ ko reyee gars yi yaakaar nañu perte nañ mu nekk biir aljanna ndeysaan di zibilé kontaan naan aka neexoon nit ñi xam lan la ma yàlla tabaraka wa taala defal mbokk yi waa jooju def na sacrifice laayo biir firawna wax ko dëgg ragalu ko ba na def ko lim koy def daal di koy rey fukkeel ak ñett annahu la budda li zalimi min nihaaya tajcaluhu ibra li may liman yactabir ñun ñëpp nañ jàng fii ñun ñëpp ku mu mun a doon jàngal leçon ci tooñ tooñkat lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg dana rëccu kuy jaay nit ñi doole yàgg yàgg yàgg yàgg di nga xam ne yàllaa la ëpp doole kuy jaay nit ñi pexe di leen jaay kàttan wala di leen jaay nàngam wallahi lu mu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàlla dina fayul nit ñi moo tax tooñ baaxul laa budda li zalimi min nihaaya kuy tooñ ku ne am nga foo yem te yem googu dina tax ñépp waaru ci yow xam ne yow ndeke tooñkat bu bon nga ndax yàlla dina la wan a kéemtaan firawna fan la mujje fan la ko yàlla mujj toroxal ci géej yàlla labal ko nëkk ko ba mu dee ba biir bi naan ndox bët yi fuqeeku biir bi jóg ci kaw néew yi yàlla génn ko ci biti ne kaay leen ngeen xool kii mu ne woon mooy yàlla mi ngi nii tey kon tooñ baaxul loo am doole am doole bul tooñ instant nga gis benn waaye buy noggatu benn xale bu am gerte caafam rek mu koy noggatu di di di ko nangu instant nga gis benn xale bu am mbër mbur ak bëram rek keneen ñëw di ko nangu ah sama gars yi ñu ngi may xool de waaye dafa am ñuy def fii loolu yenn saa yi nga gis ku jënd benn pain au rek walla dem bièche doore rek nga gis benn gaayan ñëw hmm, soo ma mayul dama lay booleeg paaba yaa ma saaga fekk defu dara ragal leen yàlla yàlla mi ngi lay gis de boo waxee loolu te loolu amul boog ñu daggal la mburu mi nga lekk ko si te te te yow mal xiyaam du baax loolu ma amul ku koy def fii ba amul ba yow doo ko def yow nag ah, yàlla de bàyyi leen tooñ xale yi ngeen di noggatu yow yaa koy def waaw ah, yow doo ko def waaw ah, ñi ñëw tooñkat yi baax na fa laqad ra'ayna kayfa kaana hilaaku firaun allahu akbar ibra ila yawmi alqiyama li kulli man baga wa takabbara wa daa annahu ilahun min dunillah mbokk yi deewu firawna war naa waar képp koo xam ne danga doon jaay nit ñi doole di ngand ngandul di balballu seen kaw di fëgg dënn di leen jaay ne yow boroom kàttan nga di leen jaay ne yow borom doole nga ndax gis nañu firawna dooleem bi li muy bari bari bari fan la mujjee fukkeel ak ñett ñeent an alxayaatu alxaqiqa wa anna naim alxaqiqi lan yakuna fi dunia wa innama yakunu fi ljanna ñun ñëpp nañu ànd xam ne dund dëgg dëgg dëgg xeewal dëgg dëgg du nekk ci àdduna ndax àdduna lu tax nit mënu fi am xéewal nit mënu fi noos lu tax day jeex walla nga suur bàyyi ko bi buñ la tegaloon boolu ginaar reer jot léegi ñu tegal la boolu ginaar bool boo xam ne ñaata ginaar nga bëgg mu nekk ci ñaata nga bëgg ñu def ko ci ñaata ginaar 10 ok 10 ginaar ñaata kilo mburu 10 ok léegi nga tiim yow kese ñu ne la lekkal nga lekk lekk lekk lekk ba ci yàgg bu yàggee nooy def suur boo suuree nooy def da jël ginaar dugal ko sa poos da nga koy njaganaayoo da nga ko fay bàyyi nga denc ko nga xëy suba lekkaat après nga mu nga suuraal da koy dencaat ba midi a ca nga dencaat ba midi nga lekkaat nga suur après nga dencaat nga xaar suba nga lekk nga suur nooy def après jeex walla mu yàqu gis nga moo tax àdduna nit mënu fi noos nit mënu fi kontaan xam nga fan la noos nekk ak kontaan ajjana foofu dara du jeex dara du yàqu te yow doo dee fii ginaar yi day jeex rek mbaa nga jeex dama am benn waaye bu doon dem ci biir kaw militaire kaw caaro yi di sàcc ginaar su guddee rek mu daal di raam raam raam daal dugg fi ñuy toggee ginaar yi daal di sàcc ginaar def ay mbuusam rek dem ñiy togg ginaar yi buñ ñëwee compter xam nañ soldaar yi ñaata lañ buñ compter rek gis mu manqué ñu yaakaar ne chef bi dafa ne ci militaire yi ci wiir am na ñuy sàcc togg bi mu daal di def ay commando mu monté loo leen ay commando ñu sol ay saaku daal tëdd ci suuf si génne seen bopp tuuti koñ bu nekk mu def fa benn commando pour ñu jàpp ñan ñooy sàcc lekk yi ñu jékki-jékki rek ñu gis sàcc bi di tëb miir bi wàcc dugg ci ñax yi di raam raam yëkki fenêtre yi dugg ubbi boolu ginaar bi bi ubbee boolu ginaar bi rek fekk gars yi raam nañ ba yes ci moom tiim ko kenn ki daal di jël arme bi rek daal di koy armée daal ne karaket tiimale ko ci nopp bi mu siggi gis ñeenti ponkal tiim ko mu xool boolu ginaar bi xool gars yi <laughs> gars yi ko lekkal mu commencé di lekk di lekk di lekk ba caag mu xool gaa yi na yi ko lekkal mu lekk lekk lekk lekk lekk lekk ba caag mu xoolaat gaa yi gaa yi ne ko yow eh mu lekk ba caag mu commencé jooy xam nga ponkal mu tiim ginaar di jooy ginaar yooyu neexatul ginaar yooyu neex na neexatul ku tiim ginaar di jooy loolu neexatul de safatul de ah. mu lekk lekk lekk lekk ba caag mu xool gaa yi gaa yi ne yow eh, bool bi na jeex mu ne dootuma fi ñëwati commencé di yuuxu kon gis nga kon ndeke neexaay aljanna la am mbokk yi aljanna allah parce que foofu du jeex ba pare yow doo jeex lekk bi du jeex yow doo jeex yow ni nga mel ngay mel lekk bi chaque heure mu ngi ñëw yaa ngi lekk du changé du forox lam yatasannax allahu akbar wanzur ila taamika lam yatasanna xoolal sa lekk yàlla nee na foroxul changé wul lekk àdduna boo ko lekkee ba pare suy rees fan ngay dem duus lekk aljanna boo ko lekkee ba pare suy rees dafay ñaq danga koy nekk dafay nekk ñaq daal di génn sa yaram nekk parfum bi gën neex ci parfum àdduna yi aljanna amul duus de àjjana amul duus dégg nga loolu àdduna nag moom kër goo dem na wala am na kër goo amul duus am na par fan pale fan nga wax pale pale am na wala amul fépp am fépp ndax doomu aadama gis nga gars yi bañ ne Isaa yàlla la yaayam yàlla la am lan la leen yàlla wax kaana yaakulaani taam isa ak yaayam dañ doon lekk-lekk lan moo tax yàlla waxu leen ne du yàlla rek yam ci daane kaana yaakulaani taam ñoom ñaar dañ doon lekk pour lan lekk fu muy reese pour nga am jàmm boo reeree tey ndikk añ pour nga am jàmm foog nga dem toilette ah nga doog a fiix kon nag sunu borom subhanahu wa taala xéewal gu gën a rëy gum nuy defal aljanna la du fii kon danoo war a sonn ndax nu dugg aljanna gis ngeen xéewalu àdduna lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy soo ci yendoo doo ci fanaan boo ci fanaanee mën nga cee bañ a yeewu boo ci yeewulee doo ci yendu waaw te xéewal gi lu neex neex lu mu rëy rëy ay minit la bu dee lekk ay minute la bu dee da nga cee tëdd ay waxtu la lu mu mun a nekk ay minutes yu ndaw la rek nga xéewal ci mu daal di jeex ndeysaan amma aljanna nag yàlla nee na xéewal yi du jeex xéewal yi du jeex xam nga lu tax aljanna xéewal yi du jeex parce que waa aljanna du ñu dee bu nit ñi duggee na yàlla day indi dee ba bunt buntu aljanna mu daal di koy rendi mu ne yéen waa aljanna ñu waa aljanna yëpp jóg taxaw yàlla mu ne dee mu ngi nii lu ngeen ci wax waa ajjana na yàlla rey ko balaa muy ñëw fii duñ génne ñu daal di koy rendi ñu ne waa aljanna xuluudun bilaa mawt sax leen éternellement yéen waa aljanna dootu leen dee allahu akbar waa aljanna nag foofu la ñuy kontaane nag di yuuxu xam ne ñoom dootuñu dee waa safara ñoom mer sëngëmtël xulli seen bët toog ci suuf di jooy lu tax ndax am xam nañ ne amatul luy ñëw foofu génne leen pour ñu mën a dugg aljanna allahu akbar suñu rendee dee waa ajjana dañuy kontaan waaye waa safara dañuy mer <coughs> waa safara lan la ñuy wax ay waaye ndeysaan ak a neexoon ñun ñu dee ak a neexoon ñu dee ndax ñu mën a génn fii mës nga gis doomu aadama di ñaan dee daan naa dee doomu aadama boo xëy suba sax nga nuyu ko ne ko def mu ne maa ngi fi nga ne ko yal na nga dee dootu la nuyooti walla saa yu ju xëyatee suba ngeen julli ci fajar jàkka ji ba pare mu ne nii séen la day wër koñ ndax li nga ko ñaanal la kenn bëgg ko waaye àjjana safara bu fa waa safara duggee xam nga lu ñuy wax ay waay yow yàlla nanu dee yàlla nanu dee ndax dee génne nu fii allahu akbar waa àjjana nag ñoom dootuñu dee yal nañ fa yàlla bu dóol yal nañ fa yàlla boole mbokk yi kon addunaa ngi noonu walisa rafada imraatu firawna an yaisa fi qasr xoolal jabaru firawna jigéen ju nekk ci pale nga bañ pale bi ndax aljanna kon xam na fan moo gën a neex ci àddina bi ban kër moo gën a neex ci kër yi pale ndaw si nekk ci pale bi ak ci xéewalu pale nu mel waaye terewul ndaw si gëm yàlla bëgg na rey ko ndax mu bëgg dugg mu dugg aljanna mu génn pale bi allahu akbar kon xam na ne yàgg yàgg pale bi danga nga fay génn ci nii wala ci na da fay génn ñu folli la nga dem wala nga génn fa dee kon nag aljanna nag moom boo fa xasee dugg amatul génn moo tax Idris yonent yàlla Idris bi mu duggee aljanna di visite fekk mu ngi dund moom deewul mu dugg aljanna loolu la boroom xam-xam yi wax Idris dafa dugg aljanna te deewul bi mu duggee aljanna visite visit visite visite fekk malaka malaka bi ko fa dugaloon da koo mayoon heure ne ko waa demal 10 minutes rek après nga ñëw mu dugg dugg dugg rek daal di jaar ci biir dem yoonam allahu akbar malaka bi toog ba heure bu jot mu ne ko Idris ne lan la yow génn dañ dem mu ne génn <laughs> mu ne ah mu yàlla waxoon ku dugg àjjana doo génn nga daal doo génn génn du de la yàlla ne yàlla ne malaaka bàyyi ko man loolu laa sama dogal la ci sama dogal la duggee fekk daf ko nax daf ko ne man dama bëgg nga ñamal ma dee mu ñamal Idris dee Idris dekki mu ne waaw yow doo ma doo ma yóbbu aljanna ma visite après nga indiwaat ma nan dem mu ñëw buntu aljana mu simi dàll yi pour mu nax ko mu simee dàll yi mu dugg rek mu réeri ci biir daw bi heure bi jeexee malaaka bi daal di koy woo ne ko Idris mu ne ah mu génnal heure bi jeex na mu ne yàlla moo waxoon ku dugg àjjana doo génn mu ne ko dee yàlla dina doon ku dee ba pare boo duggee doo génn mu ne ko ñamaloon nga ma dee noonu la duggee ci biir aljanna génnaatul aljanna ku fa dugg doo génnaat allahu akbar foofu ci biir aljanna fiiha maa la aynun raat wala uzunun wala xatara ala qalbi bashar li nekk aljanna bët bët mus ci tegu ci àdduna musul am nopp musul dégg lu mel noonu lu neex xol musul xalaat lu mel noonu doy na rek yàlla mu ne wa iza ra'ayta thamma ra'ayta naiman wa mulkan am na benn waaye boo xam dañ koy yóbbu aljanna malaaka yi di ko yóbbu mu jékki-jékki rek daal di sujjuut malaaka yi ne ko la mu ne yàlla laa gis sama borom <laughs> ñu ne ko lii fleur la fleur la de du yàlla jógal jógal jógal lii fleur la <laughs> allahu akbar keneen ki dañ ko yóbbu buntu këram rek mu sujjuut ñu ne lan la mu ne yàlla laa gis ñu ne ko déedéet kii kenn ci sa soxna yi urul ay ni la dafa ñëw di la teeru dugal nga dugg àjjana neex na de gaay waaye àjjana nag yàlla daf koy jaay àjjana yaakaar ne ay kër la gratuit maye amul maye àjjana yàlla def koy jaay inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yonent bi ne ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi xaaliya ala inna silatallahi hiyal janna marchandise su yàlla dafa seer de yonent bi moo ko wax gars yi ne lan mooy marchandise su mu ne mooy aljanna aljanna yàlla daf koy jaay lan lañ koy jaayee sa bakkan wala sa alal moom ngay joxe pour nga dugg aljanna gars kër yi nekk fii ci Dakar ku bëgg kër nooy def ku bëgg kër nooy def su ngeen demee yéen ñëpp dama leen a yónni ku dem yéen xale yi bu ngeen demee ci ngeen wax sa papa papa nan nga def ba nga am kër papa nan nga def ba nga am kër mu ne la allahu akbar ah ndeysaan allahu akbaru ah, gars yi ku dem rek laa yàlla sa papa nan nga def ba nga am kër papa mu ne la gis nga temps yooyu sama salaire ndékki rek laay dindi ndékki waaw ba ma am kër lu ne dal naa nga ne ko waa bi nga amee kër ba pare nan nga def ba tabax waaw bu fekkee këru àdduna yii nag la paa sonn pour am ko këru àdduna yi 15 sur 10 te kër yi bu ñu koy tabax lan la ciment ak suuf yee bu ñu koy tabax biri yi or la ak xaalis lal yi dafa nekk ci kaw di naaw fiha sururun marfua wa akwaabun mawdua wa namaariqu masfuufa wa zarabiyu mabsuusa allahu akbar aljanna ngi noonu de aljanna mbindaan yi fay liggéey xam nga nu ñu mel ni ñu rafetee ah mbindaani laa wax de xale yi booy yi booy yi booy yi nga xam ne ñooy joxe boisson yi di raxas kaas yi di indi di indi fruit booy yi di ataaye di joxe kaas ataaye yi xam ngeen lu ñu mel wa iza raaytahum lu luulu am mansuur mbindaani ñoo mel noonu kon patron yi na lañu war a mel seef yi seef yi ah? yàlla mu ne booy na xale yi wildaanun muxalladuun ay xale yu dul dee lañ way zaara ay taxum boo leen gisee xasib taxum nga foog ñi lu lu am mansuur or bu ñu àmbale la lu lu am mansuur allahu akbar te ñooñ ñooy bóoy yi bóoy yi ñooñ joxe ataaye yi ñooñ joxe boisson yi ñooñ ñooy indi fruits yi pour patron yi lekk gaa yi fii kan moo bëgg dugg aljanna anamu anamu anamu anañu anañu anañu waaw aljanna ku ko bëgg dugg da ngay sonn pour nga dugg fa da sonnu sonn allahu akbar aljanna benn waaye dafa ñëw ci benn boroom xam-xam na ko waar ma waar ma mu ne ko fexeel ba kenn bu mu la jiitu aljanna fexeel ba bul ñëw aljanna fekk moo ngi fees ba doo am foo teg sa tànk allahu akbar fexeel aljanna bu la fa kenn jiitu waaw léeg-léeg nga dégg ñu ne ngay wax benn borom xam ñu ne koo kenn mënul mel ni moom ah kay mën nañ ko raw soo góorgóorloo rek léegi nga raw ko kon yal nañu yàlla may aljanna loolu mooy ad-duruus min xayaati Muusa mu des yeneen xisas yi ñëw ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala yàlla defal ñu tawfiq asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.